asalaamaaleykum mbokk ñu teelu fii ci TV bésub tey yem alxamis fanweeru fan ci weerub septembre li gën a xibaar yi dañu koy door ak vox mi ñuy xamal ni caution yi candidat yi war bokk ci jongante goxaat yi ñu war amal 2022 ko daal di joxe li ko dalee benn fan jàpp fanweeru fan ci weerub octobre soleil moom dafa xëy di ñu xamal ni dañoo war a ñoñal bu baax baax li ñu dippee système multilatéral Macky Sall ak ñi mu ñun ak coowal Sen TV ak Zik FM mi ngi ñuy kat pexe yu ñuy lal yëpp defuñu ko lu dul bëgg faagaagal parti bii di gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany balaa 2024 news loolu la xëy ak ñun kon Léopold Sédar Senghor bu dellu si waatoon tey dina am lu ko metti bu baax a baax moom mi nga xamante kat dafa bëggoon Dakaaru daal mel ni Paris waaye loolu kat mu jeewul antu ndax ñi ko fi wuutu defuñu benn jéego ngir loolu daal di dem naa sa tribune boobu le le quotidien yéen kaay mi ngi ñuy wax ci kii di Bamba Fall ak maire bu Médina ak kii di Khalifa Sall maire Ndakaaru ba woon mu mel ni kat Bamba dafa bëgg a des si bopp maire bu Médina Khalifa Sall dafa bëgg a jëlaat benn bu Ndakaaru ci élection gox-goxaat yi ñuy amal l'observateur dëkk ak ñun ci ab xale bu am fukk ak juróom-benn at xale bu am fukk ak juróom-benn at kat moo daal di sàcc ab nag bu tolloog juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki a wàcc fi ci réewum Sénégal ba ñu bëri ñàkk seen bakkan dañ koo daal faat am déet kii di Pape Samba Mboup nekkoon chef de cabinet bu maître Abdoulaye Wade daal dina xëy àddu ci lu bëree bëri wax ci coowal trafic de passeport diplomatique wax ci coowal trafic de visa wax ci coowal Karim Wade ba pare daal koy jeexale ab conseil bu mu jox kii di président de la de la république moo ñu ko xamal réew mi Quotidien dafa daal dikkaat ak ñun ci mbirum da doon def ay menaces ñetti weer kaso tribune sport mi ngi ñuy xamal ni nguurub Sénégal jox na lu tolloog ak juróom-ñeenti suñu koppar suñu gayndey bit soo ko yi ak seen stade ñu jeexalee ko stade mu dellu si ak ñun ci ñaareelu fanu Ligue des champions bi ñu amal démb ci àllarba mu mel ni kat si ñaareelu fan boobu nemmeeku nañ fa ay mbetteel yu bëree bëri ndax Juventus dafa nax équipe bu Edouard Mendy bii di Chelsea daan ko benn bal ci dara Cristiano Ronaldo moo daal xeetal di U mu daal di daan équipe bii di Villarreal ñaari bal ci benn jamono jooju nag Barcelone metti ndax équipe bii di Benfica dakaa daal di daan lu tolloog ñetti bal ci dara mbokk yi fii la ñuy yemook ci bisub tey ji ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci ànd beeg teewlu bi di leen ñaanal kenn luk jàmm jaajëf